Assalamualaikum, assalamualaikum. suñu mbokk internet yi nga xamanteni ne ni nii ah tey jii ñu dëkk fi nga xamanteni ne moy stade ngalandu djouf si phase nationale yi ah, di ñëw di teewe match bi nga xamanteni moy ah, dernier match ah, groupe F bi war a opposé l'AIC de Sédhiou ak l'AIC Diama de Louga. yi équipe yo nak nek ay équipe yo xamanteni ni équipe yu mag lañu ndax kenn ku ci nek da nga disputer phase régionale ba yalla may la ci ndam tay nga ñëw fi ni nga xamante ni moy ndakaaru ñëw ngir représenter dignement sa dëkk. fàlen ko aca kon ñu dem tey jii ñu def en collaboration ak reporter yi nga xam te ne ñoo nekk ci stade bi donc DJ Elage aja ma ca ñu dem. ñu dem comme Boga ni mu ko waxee euh, c'est parti euh, Boga xoolal ma temps bi fu mu toll. Euh, ban heure la la première minute. voilà ma ngoog première minute. Aïsé Diamant, Koussi, Diamant en rouge, euh, blanc, Aïsé Koussi en bleu, blanc. ASC Koussi comment lañ jógee Boga. waaw Koussi mu ngi ne euh, mu ngi jógee fi nga euh, compétition Koussi le champion ba mu ñu tirage mu dugg ci poule bi nga xamante si Diamant rappel jambar bi nga premier match premier bi phase première édition. Ah, ah d'accord d'accord d'accord dafa ñëw pour pour relever défi parce que bii moom mooy dernier match sànni tàccoo. d'accord amul lu muy perte euh, euh, amul lu muy amul lu muy amul gagné perte mais loolu danger la si jama. Uh-huh. parce que boo xoolee loolu. Uh-huh. jama tey ji nii dafa war a dafa war a impérativement warul gagné sax même mais même bu match nii lee day qualifié. waa El loolu baax na si. denc bu ñaaw a gën jinte moo gën junni yoon sax nag aca moom nga comme ni ko bëgg a waxee kay eh, eh, mbay eh, ndam rek incha allah en tout cas loolu la ñuy ce soir euh, face à cette équipe de Kousi qui n'a rien à perdre hein rien à gagner rien à perdre de toute façon c'est une équipe qui est déjà éliminée euh, danger bi fenn la nekk équipe bi nga xam euh, équipe bu Jama bu fekkee ni tey Jama na Jama du moins seetaan na ba am de défaite wala mu am match nul foofu lay gën a méttee si en tout cas saa bi lu si nekk Babacar Fall saa bi master Bouga on continue waaw El Hadj El Hadj Jama dañuy ñaan yàlla rek mu am ndam. Euh, waaw waaw waaw waaw kooku di kooku Jean moo yor bal bi. def na passe ci Abou. Abou ki fe ki ki malheureusement ak 3-3. mais tey dafa indi 4-2 4-2 4. 4-2 4 waaw système boobu la Jama indi mooy système offensif la parce que match yi passé def round d'observation. léegi nag waaw

tey boo xoolee l'avant centre Baba Sow dañ ko wàccee. Eh, Bouga la gën a xam kon Bouga la a xam euh, loolu di euh, football de. ay ay la la Sa Faye ñun tamit euh, on est là pour vous Magueye abu xool la tey gisuma la de tey dafa mel ne nga abu. maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax au passage

peut-être niveau bi nga xam si wala expérience bi nga xam si kii di Boga am na ko ci aw ma si xaaj xaajaat bi bu ko defee li nga xam si rek moom la gis jàpp leen ni professionnel mooy wax ah professionnel en la matière par rapport ak man mi nga xam si moom amateur laa si rek dama si yam nii rek Boga ayca ma ngoog ñu dawalaat. ballon par kii c'est le numéro 11 Khalifa qui récupère malheureusement. euh, L'allée latérale gauche qui a effectué une, belle touche. Ballon pour Goriomoul qui fait une retropasse vers Jean. Jean pour Baba Saou. Baba Saou. Paco a effectué une profondeur. Profondeur. Ah, malheureusement, c'est une mauvaise passe euh, de Paco. Le numéro, 3, le numéro 5, moi-même, qui fait une touche pour Sabali. Corner pour Diama. C'est Magnam qui est avec une centre. Centre de Magnam. c'est parce que erreur bi si la jame jële bii parce que défense la ñuy def kii jugee si biir door jote abi ak si jamais moom lañ jëlee bii. Modou Gueye Niang Modou ballon pour Modou Gueye Niang Modou Gueye Niang qui a effectué un retrait euh, malheureusement Babacar a raté la première occasion Diamar a son première occasion mais Babacar ne l'a pas marqué c'est suivi de profondeur euh, équipe jama bi milieu terrain bi seen centre de gravité bi dañu baax duñu ay joueurs yoo xam te ne dañu jool seen sens moom mooy ñu football ballon au si jamais ñu sànni bal bi rek duñu ci am sens gis nga bi ñu construire leen jaarale bal bi si suuf dañu am immédiatement occasion bu précieuse mais am na benn erreur boo xam te ne si nii axe bi def na ko match passé jël bii répété waat na ko tey jii nii jëlu si bii si j'étais l'entraîneur dinaa woowaat axe bi wax ñu defaraat taxawaay bi parce que défense plat bi baaxul. mais nag am na benn am benn benn mbir bu am mooy laay laay see jama góolam ma ngi si suuf tëdd na. soutien euh, pour ñu mën a continuer euh, di euh, matale li nga xam si mooy seen soxla fii si diwaan Ndakaaru Ndiaye alors ambiance bi pour le moment Ahmed Gueye ambiance bi mënaguma koo yër dañ maa xaw a sori. Merci beaucoup à vous aussi, euh, Bilal Key. Escore, euh, pour le moment, courant scène 0 but partout. Et on est à la 10e minute. À la 10e minute de jeu. Adelo, 10e minute de jeu, 0 but euh, partout. leneen lu gagné équipe la boo xamante ne si poule de quatre la mu am ñaari défaite comprendre nga. Thiamane su defee match nul dafay qualifié day jël deuxième. bu jàmbaar gagné mais le problème en est Jama su jëlee deuxième day croisé ak ki nga xam ne mooy Lébigui ren nag Lébigui du équipe extraordinaire mais tamit ñu xam ne équipe bu bëri mbooloo la te loolu dafay joué mais Jama su jëlee première dafay permettre à ce moom mu continuer fële mu nekkoon euh, ca Guédiawaye di continuer di recevoir donc donc donc dañuy ñaan Jama yàlla may ko ndam tey jii nii. waaw waaw waaw le gardien de but est par terre par suite d'une contact de euh, euh, avec l'attaquant e xam nga loolu comme jàpp na bal bi ba pare waaw mbay noo maa ngi lay ziar sama frère kon comme excentré waaw ajo bal baa ngi di continuer bal baa ngi noonu di continuer gardien e jama nak bi gardien bi defee dégagement à latéral ba dévier toujours ñu fàttali leen ni leen faute pour l'ASC Diama donc kon abattoir c'est Magnam qui effectue une remise d'accord d'accord acca waaw d'accord kon euh, ñi continuer toujours di suivre kii bi merci beaucoup alors Bouga kon euh, kii am na victoire am na défaite. d' accord ah, waaw waaw waaw jama jama jama points mais dañu gis ni Youssou yàgg na lool si baa bi pour effectuer réserve. waaw comme ni ko bu ba waxee bàyyi ma si woon sax xel ngi bi papa nam naa la sa liggéey rafet na vraiment Ameth Ngom nee nam na la lu yow ah, ah, Boga. di ziar ñaanal jàmm aussi di ziar sama doom nga xamante ñu ngi foofu si diwaanu Louga war ba compétir ren yàlla leen yàlla defal jàmm aller contre attaque pour l'ASC Kossy Sabali Sabali Sabali rek.

ayca ma ngoog arbitre nee na hors jeu ayca Laye Diama Laye Goussy sama gars connexion mbaa de ko néegul Lomar Lomar maa ngi lay delloo ziar Lomar temps yi da nga maa bàyyi <laughs> ça sera trois points rek incha allah pour éviter aussi euh, première de notre groupe ñun ñu am euh, li nga xam si mooy première place mooy li gën. contre pour l'ASC Diamou Abou Abou Abou ma ñam ma ñam ma ñam mais dafa mel ni Mara entraîneur Kossy bi. waaw dafa xam ni Diama si couloir yi lay fubal mu fat couloir yi. parce que boo gisee tey jii nii ki muy nii extra allée latéral bu bees la si tournoi bi. moo tax dañoo gis ni bu match bi tàmbali ba léegi secrétaire général ASC Diama ma ngi bind. ndax seen latéral droit de métier bu équipe bi titulaire bi. ma ngi ci banc bi. dëgg la boo gisee loolu kon mooy cause xam na ni. jama joueur si couloir yi lay jaar. dëgg la jama koo xam xam ko ay kayit. waaw koo xam jama xam ko ay kayit. tey aussi tamit ñu gis ni naar gay. waaw lu lu lu mu gëj na ko mooy dem toog si banc dem toog si banc la tuus bi. di superviser li li Youssou di bind. waaw. waaw nice pour le moment connexion bi amul problème jaajëf merci beaucoup Abdou Seck merci

Aïcha ballon intercepté par Laïté Diamant Diamant bataille touche Aïcha ñu xoolaat bataille Diamant meilleur yor balam di daw ak moom noonu ndax dina il passe facilement malheureusement faute. ñu c'est liggéey alors Seydou là je ne crois pas que ça sera possible euh, parce que au kenn koo xam si moom pour vous, euh, pour mën a am score un match bi Euh, pour la moment moom bii laa la mën a jox Seydou peut être après mi temps bi dinañ ci am information incha allah. waaw léegi dinañ jéem a léegi nii am nañ ay contacts fële nga xam ne si nii mooy stade Amadou Barry. Amadou Barry acca ma ngoog sama waa ji googu am na ko am na ko am na ko correspondant yow yow bu wax dara rek. waaw toujours. Euh, l'AIC Diamant et l'AIC 0-0, mais vu, le déroulement de ce match, l'AIG Diamant est comme une a menacée, malgré qu'il est le premier de ce pool. Mais il joue une jeu très, très bizarre. Et on pense que bientôt ils auront une solution. L'AIG Kossi est en train de construire. Euh, malheureusement le ballon. Aïté Diama ak Aïté Bidi, di euh, zéro partout euh, plus de 20 minutes de jeu dawagul na bataille, tey euh, Diama moo yor balam Sani. sànni Diama sànni na muutali fi nga xam si mooy le milieu de terrain récupéré par Aïté Koussi. ah da nga constat ni saa yu ba jamono jiyee bal aérien day perte bal. day perte bal bi gars ay costaud la ay ponkal di dëb di la di ñëw ña ngay dugg Versaire ña ngay dugg Versaire dem na bal baa ngi ci waa jama ba léegi bal baa ngi ci waa góol bi jàpp na ko dégagé na góolu kusum bi waaw. nooru dëkkandoo dëkkandoo tey fee lay fee lay fee lay fee lay eh, stade Amadou Barry fa lay fa lay footballé dëkkandoo waaw premier deuxième heure. dëkk stade Amadou Barry lay footballé dëkkandoo troisième match am waaw. mais danañ ko xam léegi gars yi daañu ko jox stade bi ko jox léegi. bal baa ngi ci waa waa bal bang ngi caa kusum kusum mom moom wóoluwul défense bi xam dañuy ñëw rek ñu door ci kibi bi défense wóoluwul ñu door ci tousi ñu ñëwaat gaa ngi nonu ngi sabali moo yor bal bi moy bëgg tous nonu sabali bëgg tous sabali tous nako moy safal ah, moy safal safal koko moy sabali sabali yor na bal ba sabali def na pass waaye safal def na pass arbitre na jël arbitre na jugal sabali arbitre nee na jugal xam nga équipe dañ dana xaw wóoluwul seen bop nak 100 parce que damaa gis ne équipe bi jama day na xoj jama day na xoj jama day na xoj jama day na xoj bal baa ngi ci Baba Sow bal baa ngi ci Baba Sow Baba Sow def na paas ci Guèye Niang ci Modou Guèye Niang Modou Guèye Niang def na centre oh croisé na Modou Guèye croisé na def na centre Modou Guèye def na centre Modou Guèye oh arbitre nee na arbitre nee na arbitre nee na faute arbitre nee na faute c'est le numéro 3 le numéro 3

bu danga maam bu wiccaxoo rek nga xam ne gone wiccaxu na waaye gone Kaasa la gone Kaasa day am yàlla yàlla yàlla day am lu mu ko may. mi ngi noonu bal baa ngi ci waa Kusum bal baa ngi ci waa Kusum ñu ngi def paas ñu ngi def paas ah ñu ngi def paas Euh, équipe bi nii tey coach bi bi mu ñëwee euh, euh, coach jama bi indiwul round d'observation dafa ñëw rek indi stratégie. moom moo si nekk waa 4 de 4. moom moo si nekk dafa ñëw offensivement tey jii nii boo gisee boo gisee ni mu demee nii. boo gisee tey match bi ni mu demee nii. nga xam ni amul round d'observation. coach bi nga xam te ne si mooy coach de l'ASC Jama. Ousmane Ndiaye. di coach boo xam te si nii championnat Sénégal bi daf ci compétir. tey dafa indi système offensif. ñëwul xaar. Uh-huh. parce que euh, match ñaari match yi passé yëpp dafa amoon ay round d'observation d'observation uh-huh. uh-huh. mais bii deful round d'observation attention dafa am occasion boo xam te ne si gardien bi dafa def relance bu euh, kosi équipe la boo xamante ne nii seen coach bi dafa seetaan jàmm bu baax parce que xam ni jàmm si couloir yi lay fubale mu ñëw fàtt couloir yi loolu difficulté loolu tamit bokk na si difficulté yi nga xamante ne nii moom moo sonal tuuti ASC Jama yëpp dañ leen a tëj loolu moo tax Jama moo xaw a difficulté ci kaw fi def gis nañ ko yow yaa tax ñu am li nga xam si mooy matériel dañ koy wax te dee bu dul woon ak yow heure bi ñuy continuer bu plan pour et ce sera par le numéro 10 mal tiré corps arbitral bi koy arbitré. il faut ñu am tuuti compréhension si ñoom. parce que du ñoom ñoo nekkoon arbitre yi ñu désigné woon. dañu désigné woon ay arbitre malheureusement di am. léegi ñii ñëw bëgg corps bi ñëw léegi nekk ay arbitre yoo xam dañoo ñëw pour sauver saison bi. donc il faut ñu jëm leen comprendre. Uh-huh. léeg-léeg ñu def ay erreur yoo xamante ne si c'est litigieux mais dañ leen di jéem a jéggal. dëgg Euh, li gars nan ko fi def ñu wax ko ya ko fi def ñu wax ko merci beaucoup encore une fois tu euh du tay si di la sante di la gërem jaajëf Basirou kan moy kursi jama bi alors boogaa ki de Kouro sen de kursi jama bi lay laajte ba kursi jama bi mo ngi tuddu si palmarès man lañu wax ni mo ngi tuddu Ousmane ndjay Ousmane ndjay kursi la bo xam te ne dafa am du du du kursi bu am deuxième degré la ma ngi tambalé fi nga xam ne carrière am fi nga xam te ne sii nii moom équipe bu mag bu nekk Thiès bu tuddu walidan walidan mu jugee walidan ASC bu ñuy wax liberté bu Kébémer recruté ko mu ñëw football fa carrière am senior. bi. bi mu jugee bi mu jugee bi mu jugee bi nga xam te ne si mooy liberté nekk na fa entraîneur. après liberté si la jël club bi nga xamante ne si mooy Jàppo FC. année bii passé nag waa Jàppo FC ñoo ko recruté. ñoo ko contrat Adja Abou Adja Abou effectivement demal demal demal Oui, le premier but effectué par le dossard numéro 11, Abu Traika, Abu Ezar, le fils de Babakar Maïgaï. Abu vient d'effectuer son deuxième but dans ce championnat. Abu, c'est un grand monsieur. On l'appelle, on le surnomme Hazard. C'est gamin, on le surnomme Hazard. Abou Hazard. C'est son deuxième but. C'est un vrai leader. C'est un vrai capitaine et un vrai leader. Le match passé, il a pleuré. Lors d'un match, il a pleuré. Voilà. Hadj. mais li ma doon wax sànq position avant centre la yor. waaw waaw ce qui veut dire que ni moom lay euh, le coach de l'ASC Diama carte de carte bi ko à tout moment bu nekkee bu amee contre attaque day changer système ko 4-3-3 mais bu nekkee bu fekkee dafa nekk système défensif day def 4-2-4 coach bu coach bu technique la. Euh, nañ fat bu baax a baax a baax a baax foofu nañ fatal suñuy camp ubbi camp yi nga xam si ñooy waa kusi bu ko defee ñu ko say ñaf-ñafal la défense doit rester solide et on exploite les contre attaques effectivement Maurice Seck nañ génn buñ génne incha allah pour am li nga xam si mooy une victoire ñun tamit on va essayer d'en profiter pour marquer d'autres buts dug doy da football moom li may wax gars yi football moom dugal rek lycée Van Antec ah si ma gay waa mais xool yaa ngi féex mi féex bu baax a baax a baax si naaj Moussa Moussa dama xaw a soj. waaw El Hadj léegi kon comme ni ma la ko waxee sànq rek Ousmane Ndiaye la boo xamante ni si nii cette année ci on a vu que bi muy recruter joueur ni mu recruter joueur noonu la dem recruter coach boo xamante ne si nii coach de haut niveau la. parce que championnat Sénégal ku ko compétir ba championnat bi jeex nga ñëw di di manager équipe bu nawetaan équipe boobu am na ay ambition. effectivement donc milieu bi euh, niveau bi Ousmane Ndiaye ah. la. dégg nga nga xam si loolu la bëgg a wax ah, si kii di Ousmane ah, le coach de l'AS Diamant ya faute ah waaw góor yombul faute am na. minute moo ñu dese fii si première mi-temps bi ah, Diamant moo dominé gul par un but à zéro devant ASC bi nga xam si mooy ASC aussi le jeu continue dara jeexagul mbir mi day soog a commencé rek. 35 minutes à peu près jàpp Sonko. bu soutenir jaajëf Mbaye waa Kidira Abou Abou Abou mu le premier but de l'AS Diamant Bilal Gueye 1-0 pour l'AS Diamant 1-0 pour l'AS Diamant ayca Mangok. Mayoro merci beaucoup. Mayoro man dama seetaan match sax nag damay damay damay damay fóoni rek <laughs> bëgg nga am expert bi. <laughs> Kossi boo gisee Kossi. seen meneur de jeu bi seen numéro 10 bi. ndaanaan la ndaanaan la loo xamante ne si nii ba ba léegi ma ngi dox. waaye bu doxalee ba jaar si booru góor yomb rek góor yomb lu ko fii baaxul ko du fi dañ koy fatt di ko naan fattal ma foofu waaw dañ koy fatt ba dara du fa jàll ay jë kon gën a la fatt góor góor loo fatt doyul ah mati ngay nee na Dakar neex Ouais Diama il vivrait le numéro 3 de est malheureusement il passe il passe il centre le centre 2-0 Aïe là Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe oh oh aïe, aïe, aïe, oh aïe, plus carton arbitre jox ko carton. arbitre loolu carton la. alaaji xale yi li ñu doxal na. donc c'est pour góor yombul. góor yombul la faaw bu mel nii. théâtre kat yi dañoo am jom. bëri maanaa. waaye xale bi mu def chaque fois que am rek. dafay xaw a si ñoom. saa yu contre amee attaquant bi day libre. xam nga bi maanaam seen bit bi ñu jël géejawaay loolu moo waral loolu ñu jël ko. transparent bi nañu na kenn di sàcc di liggéey wala muy sàcc di di di tongu loolu lañ xam waaye transparent bi baaxul mi ngi mi ngi rey waa jama dégg nga su sëgay mas fi dama na Cheikh Thiam paas na paas na Ousmane Ousmane def na dégagé na dégg maam ci Amar ci waa ji na ko waa ji dégagé na ba a suñu seen bi nga xamante mooy Fal Co ñu bu leen bu vous match bi jeexee rek bu leen gisee ndax match bu rëy am entre Santagne ak ASEC waaw ngeen bàyyi ci xel toujours l'ASC Diama qui qui effectue le jeu Sabali Sabali qui cherche une solution Sabali il fait une appui sur Modou Gueye Niang Khalifa Mam Khalifa mauvais centre de Mam Khalifa il y a faute il y a faute. Sidi tey ñëwul. tey tey daw alors ma ñu supporters yi tuuti Modou Matar Gaye waaw baax na supporters yi actuellement est ce que dañuy dal ah la Mara. mais saa ko joxe bal bi rek. oppose toujours l'ASC Diama et l'ASC Kossy un but à zéro pour l'ASC Diama ah ba légui rek ñu continuer di nga di di di sétane match bi nga xamanteni ci ni euh match bu reuy la ndax eh, jama mom mo équipe bi nga xamanteni ci ni tay ji ni waye mën nañ ko considérer comme outsider parce que c'est son première année en phase nationale mais ci poule bi mu nekk bu fekkee jamon dafa gagné moom mooy jël première poule bi parce que poule la boo xamante ni si nii ku si jël deuxième rek da ngay ak poule bi nga xamante ni moom la dëkkandoo ne moom la équipe bi di lébugu nekkoon xaat na ko ki nga xam si mooy ak sam bi la numéro 13 euh, de l'ASC Koussy Ningok euh, def passe euh, sur le milieu de terrain. Hein. Le numéro 10 euh, dégage le ballon pour chercher qui Le numéro 11 de l'AIC Diamant vient de récupérer le ballon. Et on continue. On continue. Gardien, de, gardien, il faut 10 minutes. incha depuis la patwa awa maaxa awa maaxa ñu ngi lay ziara abu amagul nga daam daalu ngay am na yeneen prime yoo xam sami annoncé nañ ko fii bu ko defee lépp loo xam si rek wàcc na fii di nga si jot incha allah abu aca na ñëw yoro jaajëf maar ma yoro incha amu dinaa la wax lan mooy pointure am bu ko defee ñu récupéré li nga xam si mooy suñu dàll. waaw rajo boobu nga xam te ni mooy Géoul FM. waaw xale boobu nii la war a mel ndax turandoom képp ku dëkk Ngoumba xam nga waaw Mara Cheikh Thiam kan mooy turandoom. ñëpp a ngi si ñëpp a ngi ah, ah, kontaan naa direct bi macha allah. Aïcha Sidi merci beaucoup ah, Malick Diouk. ñaata ñaata gars yi pour le moment 1-0 pour l'ASC Diama Babacar Fall mi fatt ñu ngi koy fatt bu baax a baax a baax yaakaar naa allez Diama daan soxna seen jaajëf soxna Omar Diagne fii ASC Diama pour rêve merci beaucoup alors Bouga ba tey 1-0 euh, pour l'ASC Diama ñaata moo war a des ci temps bi pour le dem ay jox ko le numéro 11 malheureusement baaxul L'égalisation L'égalisation à Sikoussi qui vient tout est légaliser à la 45e minute. À Sikoussi qui vient d'égaliser à la 45e minute. Il va Ibrahim Kaye, militant. Ibrahim Kaye. Et qui a marqué son premier but. à euh, partout. Orjo. Euh, noo xëy ni saa ah. mais boobaa pour man lii du défense balaa bi. erreur bi pour man défense balaa bi erreur bi ci ci maam Khalifa moo def passe bu bon. moo def passe bu bon moo def passe bu bon ba noppi ñoom li ñuy nag arbitre bi arbitre bi arbitre bi arbitre li muy seetaan bëri mooy li ma la mën a xamal mooy seen paas yi bon yi lañ war a bàyyi paas yi bon yi lañ war a bàyyi ku ci dugalaat na léegi arbitre na hors-jeu mais axe bi axe bi axe bi ñoo bi de axe bi ñoo ngi casse milieu terrain bi. milieu terrain bi dafa mel ni désordre bi ci milieu terrain bi la nekkee. effectivement mi-temps ñu ngi dem mi-temps dinañ ko waxtaanee seen biir en tout cas li nga xam si moom dul na kaasu ba ay ay ay ay xolal xolal ñoo ngay defar góor ngay defar jaar na si Mamadou Gueye ñaa ma ñam ma ñam ma ñam ñamalewul ma ñam topp na gone ga ma ñam ma ñam kii si le numéro 4 ah Paco nee na nee fii du yoon wi waaw defaraat na paas na ko kii di Mame Babacar Mame Babacar pour kan day dem day dem day dem day dem ah ba muy demee ma nee ko du fi ko fii yoon wi baaxul nee ko fii yoon baaxul nee weneen yoon aja ma ñam ma ñam ma ñam def na ca Mamadou Gueye ñaa ku fa wala arbitre bi nee na déedéet arbitre nee na déedéet arbitre nee na déedéet waaw buñ ma mayee ndox man naan ma jël Baba Sow def na diyel maam Babacar maam Khalifa maam Khalifa avait effectué une transversale malheureusement bal ba na douce sabal waaw waaw abu abu yor ma ngay doxal jaar na si Guèye ñaa a ah, góor yomb a ah, góor yombul nee na fii yomb na ko waa ko yombul ndeysaan avantage pour Diama Sabali day jàpp sànni sànni na ci abu abu delloo ko Sabali def na centre bu baax centre ba romb na défense ba yëpp papa papa Paco Paco oh, malheureusement malheureusement Mañam Mañam def na remise mais mais mais mais Baba Sow Baba saw diyeel yi mii def yëpp saa yu defee diyeel arbitre bi danaan ko franc la xam nga nag day joueur boo xam ne macha allah ñaakul kattan. waaye dafa war a wàññi nag diyeel yooyu franc yi bëri yi dafa war a dafa war a une présence pour taxaw Baba ñu xamee na ko lëbb mañam mañam mañam mañam kan Abou. yeye yeye jama ma ngi waajal changement waaw parce que jama day wëri bii entraîneur bi dafay wëri bii hors jeu hors jeu mais arbitre bi tiré wu ko fatal foofu fatal foofu gone ko si gaa ngi doxal gone ko si gaa ngi doxal fàttali leen ko fat a go ndeysaan alaaji góor yombul góor yombul saa yi gone yi doxalee ba ñëw mun leen fii baaxul gone yi koosi yi maara gone yi koosi yi saa yu doxalee ba yegg si si góor yombul góor yombul ni leen fii baaxul ni leen ni leen dox leen dox leen foofu góor yombul jox na Ousmane maam Ousmane dafa mel ni def nañ fët ci moom arbitre gone gi tëdd na demal xooli ko arbitre gone gi dafa tëdd demal xooli ko El Hadj ndax di leen xool ba xam def na changé na système am déet Baba Sow Baba Sow aux manœuvres qui cherche une appui sur Abou Abou Abou Abou Abou centre na mais centre bi mu centre dafa mel ni. coach bi dafa war a xoolaat défense am bi parce que défense place bi ñuy def baaxul. défense baaxul. ah ba tey. batay ñu ngi suivre falen ko di sen sen YouTube di sen sen anu dom bi nga xamanteni ni day sacrifier toujours pour lu ngeen pour sen bëgg-bëgg waaw jàmm xale boobu muy ba waaj indi. waaw. Ah, la mais excentré jour de vitesse jour jour vitesse la. waaw jour couloir la. waaw jour bu man ndaw la. li ma gis mooy li koy teg si tànkam da nga koy jox si tànkam dénk ko. waaw mu orienté la. dëgg lay tegal sur le plat la lekkal. bal baa ngi ci àddu góor def na paas yombul def na paas. waaw góor dafa ñàkk bal bi daw xeexi ko góor dafa ñàkk bal bi daw xeexi ko boo xoolee jàmm bii bi mu jël tànk bi Mame Babacar defee passe bon lii góor def la deful dafa def passe bon góor dafa def passe bon daw xeex jëli ko mais Mame Babacar dafa def passe bon ba pare taxaw boo gisee loolu la taxoon coach bi di yuuxu waaw El Hadj ah, ah na El Hadj na ndax coach coach bi dafa def changement mais supporters yi dañuy kaas capitaine ba ngay kas capitaine ba neena ko woro ko la def neena ko gone nga génne ah gone gi waroo ko la a nan xaar nag ba xam fu wane ni mu jégg ba dem xoolal supporter ya laaji jëlal ma supporter yi supporter yi ko si neena entraîneur bi li nga def lu dara xalé bi neena ko warul wona duggu waaw waaw waaw gis na nak lii ak football ndax senegal mom bu ne lamb ja ñepp meur lay doon bu day football ba ñepp entraîneur la ni doon. boo gisee kosi gi dem phase nationale wóolu ko mu def changement gone yi si kaw ni ko déedéet loolu xalaatu gone yi la rek xalaatu gone la. déedéet bokkul ak xalaatu course bi. d'accord ma laajte. ah ko laajte. ma ñam ma ma ñam ñamal na pako pako ba daxal na Mamadou gayña gayña à la manœuvre retrait pour gayña oh retrait retrait ay way ala daran teggi ko do la warama dem même bi ne ma yegg ci bal bi dañe fa gool bi da ko warana teggi waaw bal ba nga doxat non bal ba nga dox ci wa kusi bal ba nga dox ci wa kusi ci segay waaw kooku kooku mbëkk bal bi ci kosi sank mom lañ duggal supporter yi bañ ay Paco mi ngi def match Paco ngi def match nag. non Paco il est def match ce gamin là il mooy numéro 8 bi jàmm. mooy numéro moom mooy moom mooy bi. ngi mais xale bi day mel ni ku dugg géej bu ah, génnee. waaw may woo nan ma bàyyee woo dama def direct. belal belal moo may woo beneen moom maa maa ngi direct. maa ngi direct. nee ko munu maa jël kenn benn numéro mi ngi noonu. dégg nga ko. mi ngi noonu bal baa ngi bal baa ngi ci Jean Jean góor yombul góor yombul góor yombul góor yombul góor nee na waaw c'est normal. El Hadj Kossi de Sédhiou. mais arbe yow Kossi Kossi c'est Kossi Kossi bi. Kossi bi. mooy. day nekk temps foofu dugal ñee nekk seen temps foofu dugal te loolu baaxul dama na fee ji ji bi parce que bu ji béewul mën na ko naxat te nax bi baaxul ci may ma ngay doxal ma ngay doxal ma ngay doxal na sax Amer Amer ah Amer arbitre kooku da ngay war a carton wu xonq wi ma ñama ngay doxal ma ñam ñamal Un but partout. Centre de Magnam. Centre de Magnam. Tête de qui Mam Khalifa qui a effectué une remise. Paco. Paco pour qui Pour Abou. Abou def le retrait. Abou def le retrait. Magnam centre pour Magnam. Tête de Mam A. Ah, malheureusement, Mam Khalifa qui temporise. Mam Khalifa qui temporise. Mam Khalifa qui cherche un appui. Mame Khalifa qui temporise. L'arbitre laisse jouer. Le verre dàq na ko le verre dàq na ko le verre dàq na ko le verre dàq na centre ba ah arbitre nee na coup franc am na xam nga bi gouvernement bi fi mu nekkee baaxul parce que jant bi dafa féete ak camp jama yi. dégg nga li ma la wax fi mu toll bali bu doon dugg góol bi xamalum ci am taxaw di xool parce que góol bi boo xoolee dafa jàkkaarloog jant bi. waa ñu dem géej waay ñëwaat. waaye ndaanaan bi ndaanaan bi ñoo am jom. ñoo am jom. ah ak laay seeg ko si. na hors-jeu waaye supporters yi nangu ah, waa Kosi yaa ngay doxal. waa Kosi yaa ngay doxal. zéro waaw jàmbaar moom mën na bi à zéro waaw ñu déggandoo ko jàmbaar nag bu fekkee ni moom moo gagné match am boobu noonu dafay am 6 points waaw euh, Kossy yaa ngi doxal mais Kossy dafa nekk ci temps fort góor yombul buñ doxalee buñ ñëwee góor ni leen li ngeen doxal baaxul Modou Gueye ñaa pour Paco Paco qui fait une longue passe vers euh, Mam Khalifa allez-y Khalifa qui déborde Mam Khalifa quest va faire quest va faire pour Abou Abou Hazard mauvais contrôle mauvais mauvaise passe mauvais contrôle et mauvaise passe Le nouveau rentrant qui effectue une belle centre qui effectue une belle centre ala Aja Jama Kose ngay doxal Kose ngay doxal Aja Aja Gueye ñaa li nga paas baaxul li nga paas baaxul. ndax ndax boo xoolee xool joueur ko si. fi ñoom ñëpp fi leen xool. yooyu ba amee ci football da nga naan leen fi ngeen xool baaxul sànni ca weneen wàlla wa gone ya doxal. loolu man loolu laa gisoon. ma nga waaw waaw ndax gis nga latéral bële mooy ndaama yëgul njool. moom saa yu nu sànnee bal bi mun leen baaxul. waaw si sa yaa ngi koy dégg noonu. waaw. yaa ngi dégg boobaa noonu boo koy boobaa. waaw dañuy yàkkamti bi bi torop mais dara yàlla baax na. yàlla baax na du yéen ñëw yéen leen ñaan yi rek. dina yi ñu ngi def li naan tiki taka am njaay joxal jóob dootuñu joxaane léegi léegi bu nu waralee côté bële ah, door yombul dab na pour Abou. Abou dafa dafa dafa permité ak ki nga xamante ni mooy Mame Khalifa l'autre excentré. oh oh mais nag c'est normal c'est normal xam nga Ndakaaru démb ca njël ba ngi ba nga ni taw. jamono door nañu nag xale boobu xale boobu amortir bal bi moom la course bi dugal sànq supporters yi di bañ. moo tax man la man la course xalaatu course yoonu supporter newu ci. Mame Khalifa kana bi ne mujjul ta sotti waaw ba tey yéen a ngi seetaan match bi nga xamante ne sii moo dox diggante Kossy Kossy bu Sédhiou ña ngay doxal waa Kossy ngay doxal góor yombul nee na leen foofu baaxul góor yombul nee na daa jaar si góor rek. maam Khalifa dublir na Mam Khalifa sandre bu bax. Waye góor ma wa ma Mara. Mara gul sa ngéemul benn yoon de sa ngéemul de. mel na beug bëgg wat dellusiwaat. waaw daa mel na beug bëgg a dellusiwaat. ñoo ngay defar waa ngay defar. jëlee nañ bal bi wet gi yóbbu ko wet gale sa numéro 14 ba. ngay defar bal baa nga ci sabali sabali abu abu abu abu abu abu abu qui fait une transversale sabali sabali sabali pour mam Khalifa mam Khalifa très mauvais centre Remueve stand. Remueve Remueve. ci mañam mañam mañam pour abu abu abu ay waay ndeysaan ay li xale bi def ay li xale bi def ah, li bi def xale bi ba ndax bal bi jox ko mu ne eh ah ah arbitre bi nelaw na orzo déedéet bu leen yuuxu nag

Abou a raté une occasion extraordinaire si c'était moi bu mu def loolu xale bi na taxaw bal bi dal ko dugg mooy Bilal fii lay waaw waaye ba tey doxal Burkan Albi ah. Douz nee na Orzo. waaw waaw moom faaw mu mel noonu. bu dee frère Sabel la ko. ñoom seen famille dañoo dañoo saf. moo taxit def na lu baax. ñoom ñooy famille saf safal. lu baax bal ci gaa partout entre et Diama et l'ASC Koussi au niveau de Tengech. Faute, faute sur l'attaquant. Faute sur l'attaquant. Arbitre ah couvrant franc la de ko orange ma ne ko mango nga sànq ba léegi ma dem jëndi bëy man laa yëg daan su ma ko joxee rek incha allah dama sama xel bëy waaw le vrai le vrai moo éloigné daa ci noonu Mame Khalifa mauvais dégagement de Mame Khalifa waaw léegi dañuy joxaat góol bi mu defar. day de déedéet ñoo war a fubal deuxième mi-temps ñoo war a fubal deuxième dañuy échauffé wu. loolu en général corps arbitral bi ñoo koy décidé. effectivement te 90 minutes mais xam naa ne parce que Mara bini bini bini ñuy bi ñuy reere wax na ko nee na deuxième ballon yi moom yaakaar na dina ko dugal balaa compétition bee jeex. voilà voilà voilà voilà voilà. waa fii nag surnombre dafa waroon am. juróom dafa téye arbi nee na tuus naa doon jaar gis nga yaa ngi may dégg ci loolu kon daa ngi waa jama jama santre jama santre jama santre mais nag jama deuxième ballon yi ba léegi baaxul. parce que ñu ngi toujours mooy première place bi parce que première place bi moo ëpp avantage da lay permettre à ce que nga maytu équipe bu mag équipe bu mag a mag bu mel nii. Euh, Euh, équipe yi nga xam te ne si moo moo moom terrain bii ñu nekk muy muy muy muy lébu gi. lébu gi effectivement parce que bu ñu génnee moom dañuy croiser uh-huh. te xam nga phase yi supporters yi dañ siy joué lu bëree bëree bëree bëri. ambiance ambiance daf siy joué daf siy joué mais am nañu yoon wi gone yi jël bala moo buñ ko bawul mën nañoo am uh-huh. waaw. Hmm? Hmm? bul boobu nga jëm waaw bul boobu nga jëm bul lëb ji. non xaw ma seen résultat yi après naa la ko wax naa la laaj information. wut nañu ko ci attaquant ba attaquant mooy numéro 10. waaw ah, numéro 10 ba. mën a porté ba. tey nga ko tey nga wàccee. jaarale na si digg bi. waa si biir terrain bi dama nangu bal. maam Khalifa yaakaar naa mooy bal wala bii wala bii la maam Khalifa boobu mooy attaquant bi. naa bëgg na bal wax naa wax naa Abdou Abdou wax naa Abdou Abdou Touche. te ndaama lii nag xam naa ne. néew kii ndaama nda nda. ndaamal diggu noor la. mel ni bal bi dafa baaxul ndax dañuy gis ni Jean dara ci bal bi. incha allah set setal dina fa am suuf incha allah. huit heures ñëpp ñëw en masse euh, pour toujours laay sekk qui déroule. corner avantage. corner de laay sekk pour laay sekk aussi. gars yi rek mën nañoo saraan défense ba dañuy saraan gars yi mbëkk man sóoraale mbëkk yi li baaxul ko sóoraale waaw. 27 minutes 30 minutes. Mara wax naa la sànq ni la. arbitre yi arbitre phase yi équipe yi waruñu si basé wu. parce que arbitre yi plan B la ñu. arbitre yi nga xamante ne si dañu xam nga phase nationale dañuy sélectionner les meilleurs arbitres ñu ñëw arbitrer si ko mais cette année ci biñ leen sélectionné woon ba ñu yegg si dañuy def première deuxième journée am problème ak ñi nga xamante ne si ñooy ONCAV arbitre yëpp ñibbi waat arbitre yëpp plan B la ñu donc du dañu faral ma Samba wala ma Demba mais dañu mënul il faut jouer jouer di sóoraale loolu. Wow, lawan ni Jama Ayar Bal Mam Babacar bal bi ci kanam bal bi ci kanam la jóg ci poche bi ñaan ko bal devant géejawaay bi ñu fa sànq ñoo ñu waxoon 1 buñ ko dugalul buñ ko poussé mu. même buñ ko dugalul ah. buñ ko poussé mu daanu. waaw nee na jàmbaar moom moo moom la Modou Seck wax tamit. en tout cas merci beaucoup président jaajëf alors kon na kon Jambar, moo gagné jamono forcément victoire la ñuy xaar si moom ba tey boobu. match bi joxe jot nañu foofu gagné. Jambar, moom moo gagné loolu la ñu wax en direct bi voilà. waaw kon Mara jot nañu jot information ni jambar mo gagné feulé donc jama pour mu jël pour mu jël première invité ki nga xamanteni si ni mom moy lébu gi il faut mo gagner impérativement. kooka loolu am lool loolu ngay wax amul solo man lima gëm na gañe rek genn kon donc dal jàmm na gañe. ba mu genn deux. kon jàmm na génn na gañe mu genn wala mu genn deuxième. yooyu sens amul sens. euh ku ci jël deuxième ci zone bi. pour l'instant ñoo tolloo. rek. war na wax. moo tax nga ne ma bul wax. ba tey yéen a ngi suivre match bi ngay xam te ne mooy dox si diggante ASC Diama. toujours maam Khalifa mais Mara. maanaam maam xalifa dafa mel ni fubalu xale lay fubal. ah da lay jox bal bi la kaa ñu te pelouse pelouse bi bal am na benn vitesse boo xam bu ko dawee rek doo ko jàpp. championnat fubalu benn bi la nekk. ba tey jamaa ngay doxal. waaw tey nga xam xam nga loolu nga gis. loolu mooy avantage yu phase nationale. phase nationale dañuy toog sol bu mu woyof di xool gone yi. arbitre bi ay arbitre bi añ na arbitre bi añ na temps additionnel nee na 3 minutes da des ci pomi fi mu toll nag fi mu toll loolu loolu arbitre bi yëkkati moo tudd ndëgg sërëx équipe bu ci fo ba lu toj sa kër da ngay ñibbi da ngay ñibbi daal di say banku soxna si waaye mooy ban maam Mara. bit yi jël tëgg ko fenn bit yi muy jël tëgg ko fenn dépense par rappel lañ koy may bi bu ba léegi amatul occasion yi doon am bi jàpp na bal bi góorlu ko sum pour l'instant nii 1-1 ci mooy qualifié. cey saf-saf cey saf-saf cey saf-saf Paco saf-saf ah Paco qui a effectué une très mauvaise passe Paco a effectué une très mauvaise passe Mara tey dama gis ni Paco. Paco ni mu mën a indiwu ko. waaw Paco sax bi góor ñëwee ba léegi. waaw bi ko waaw waaw waaw. bu góor génnee ba léegi. Paco ma wàccaat def wala six. di def nga demat. kon sorti góor yombul feeñ na si. Sabali moo doxul. Sabali doxul mais Abdoul doxoon na premier mi-temps mais deuxième mi-temps doxul maam Khalifa moom mooy dox te maam Khalifa deuxième. ba finition finition moom des. bi jamono war naa a yàlla bu ko si dugal. des si yàlla Diamé sorti deuxième n'est-ce pas Joori Diamé ñu bëgg na mbal mu dem suuf waaw pour ñu ñëw ci noonu mbal mën na mbal jàmbaar waa Jama yi waa bi mooy ndam lu kat bi dugg léegi dégage nañ maam Khalifa ah. mu ngi jëm ah, ah arbitre loolu loolu moo tax gis nga Mara supporters yi war nañoo def war nañoo tey gis nga xale boobu ñu doon yuxoo naan ba mu dugg ba mu duggee léegi day temporiser té fu fu fu nu gar fu ne xalaa manir baajo loolu yóbbal bi sen kan mu jori xala xala do len fi jaar daal di fad wala mu bumax bu ko defé bal ba du dem deug deug xalé bam jom la waaye ba tey maara ba tey ñoo temps additionnel yi san sa ah, al yee jug nan taxaw mara al yee jug nan taxaw ñatt lañu ñoom bu bu bu arbitre bu wootee ni ni firit ñooy daw gàttandu ji ko. contrôle euh, de Ahmed Diop. daf koy yàkkamti. Euh, tey euh, kontaan naa direct bi macha merci beaucoup Malick Diouk. attaque gars yi pour le oh. daf koy yàkkamti daf koy yàkkamti bi jeex na. Diama Diama a pris place. Marsiliana Marsiliana Marsiliana Cissé Gueye. Diama a pris la deuxième place. pour l'instant daa mel ne Diama Diama moo jël deuxième ci poule mais Mara Diama Diama dafay victoire Diama dafa def réserve.